asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi dellu nanu di leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal tey sàkku seen ñaan di sàkku nu ànd ñaanal suñu kilifa sunu borom tabaraka wa taala gën leen fee yàggal te wéral leen nu jiital ci cheikh mouhamadul muntaxa mi nga xam ne moo toog a jataayu xaadimu rasul yàlla na ko fi yàlla gën a yàggal te defal ko ak wér te wéralal ko ñi ko wër kàddu yi bàyyi ko ci moom Cheikh Mamadul taxa mu am kàddu yoo xam ne da ko yónnee ci sëriñ Mamor Mbakke moom sëriñ Falilu mii nga xam ne ñëpp xam na liggéey bi mu teg ci loxoom ak doyloo gi mu ko yàgg a doyloo kàddu yooyu nag damay bàyyi kàddu gi ak sëriñ Cheikh Mbakke moom sëriñ la Latif mu ubbil sëriñ Mamor mu leeral nu yonent bi nu déglu sëriñ Cheikh bismillahi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon nii ko sëriñ Omar waxee sëriñ Muntaxa dafa noo yónni ci sëriñ Mamor mii ay kàddu yoo xam ne daa fekk mu yónni woon sëriñ Mamor tey jii ci suba ci luga ngir xew-xew yu fi amoon ci fan yi yëngu-yëngu ya te ñu bari déggoon nañ ko ba sëriñ bi waxoon ci lam ci waroon a wax ñu ne ca doxin ya am lu ca xewoon sëriñ bi nag ci bëggam lu rafet ak bëggoon lépp lu ñuy def di ko teg ci ak dal ci ak teg ko ci yoon ba la ca war a am am ca te dara du yàqu dara du ñaaw moo taxoon sëriñ bi inoon sëriñ Maamoor mii nekkoon a dem Louga fekk fa sëriñ Mahmadan moom sëriñ Mourtada ak sëriñ Papa Codelo ña nga xam ne ñoo jiite taalibe yi ca gox booba sëriñ Mamor wax leen la nga xam ne moom la sëñ bi bëgg sëñ bi xalaat ko sëñ bi digle ko bu ko defee ñooñu jottali ko gox gox ba ñu tënku ca ndigalul sëriñ bi ba sëriñ Mamor demee itam mat na sëkk sëriñ Mamor jotal na sëriñ Mahamadan jotal na lépp leer na waaye sëñ bi itam bëgg rek lépp gën a leer lépp gën a jot sëñ mu ne kon naa dellusiwaat bi ci sëriñ Mamoor sëriñ Mamoor daal ci kàddu yi cant ak kàddu yi leeral moo ngi mi nga xam ne moo demoon ci mbirum ma dund ko dund ko bokki taalibe mu leeral nag ci bokki taalibe yëpp ñu yëgandoo mbirum ma nañ ko doxee ak nam doxe ba si fii ak nañ ko tënkee ba ñëpp mën a tënku ci tënk booba ànd ko na ko sëriñ bi xalaate bëgg ko ni te lépp di defar rek lépp di mu gën a baaxe rek bi ñu xam ne lu ñu bëgg day am waaye nañ ko def ci na mu gën a rafete am la nga bëgg tam rafet mooy lépp solo loolu la sëriñ bëgg sëriñ Mamor nga gën a leeral rek gën a jottali sëriñ Mamor kon day gën a jottali rek aw yoonam ak fañ jaar bi egsi fii bëgg ñëpp déggandoo ko ak cant ya ca war ak jotal nga ca war sëriñ Mamor ko ñëpp déggandoo bisimilah. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di leen jottali ay kàddu yu gàtt yoo xam ni sëriñ bi moo nu ko santoon ñu doxi woon ko ba ñëw jébbal ko ko mu rafetlu ko lool am ca mbégte lool wax ni na am ay ay ay ay lu luñ lu luñ ko dolliwaat loo xam ne lii da koy gën a leeral gën koo yaatal ndax daf ma yónni woon Louga ci sëriñ Mahmoudan ni ko sëriñ Cheikh waxe ak sëriñ Kodiloo ma nga xam moo jiite taalibe yi foofa wax ni boo demee nga ni leen nañ digal taalibe yi ñu amuk dal te lépp loo xam ne lii sëriñ Touba daawu ko def daawu ko jëflante ak doomu aadama yi ñaan naa taalibe sëriñ Touba yi ñu jaar ca yoon woowee te Serigne tuubaa nee na mësta tooñ mësta fayu tooñaange ku ko mësta tooñ jéggal na la ba lii lii mu am Serigne bi wax nañu loolaa ko may ci lépp lum ñaan suñ borom may ko ko ba mu ko waxee sëñ ba ma ko waxee sëñ Mouhamadou waxee ko noonu leeral na ko leeral woo xam ne bii sëriñ bi sant na ca lool ba ñépp dégg ko waaye mu ni ma nag ginnaaw damaa la yónni woon ci gox ba loola amee Euh, yun la ci ña fa nekk nekk fa samay ndaw nga dem wax leen ko ñu waxe ko na ma ko bëggee dama bëgg nag nga xamalaat nit ñi ni leen yëmul ca gox ba rek senegal gépp murit yëpp julit yëpp la ñaan ñu jàppale ko ci wut jàmm googu wax fir lanaa wa aafina bi aafiya takkoonu fi daare ni xayra aafiya jooju sëriñ Tuubaa wax la bëgg muy law ba fawwu moo tax ni ko sëriñ daan waxe muy wax ju leer mu bëgg ñu xam ni ñëpp la ko boole taalibe yëpp murit yëpp njabootu sëñ tubaak yëpp ak ta jullit yëpp ñu ñu xamee ko noonu mu law mu law la ca tegu mooy ma santal ko ñi nga xam ni ñoom la mbir mi dal ci seen kaw ndax taw tawfeex da caa am tawfeex ja mooy bi ñu sëriñ bi yebal xamuñu woon danañ fa daje ak ñoom ñoom itam ba ñuy def seen lu baax di wut seen mbooloo ni dañuy dem ci sëñ Mahmoudan mi fi nekkal sëñ ma fa ma nekkal sëriñ bi ak sëñ Kodde ñu leeral ko seen diggante ak moom xamal ko ne ko bu dee ñooma day dara dootu yëngu ci foofu ci foofu ci lu jëm ci loolu loolu itam sëriñ bi ni ginnaaw loolu lañ wax na nga ma leen santal bu baax a baax a baax gërëmal ma leen te xamal mbooloo mi ni leen gannaaw ñam dal ci seen kaw ñoo am ñoo amee muñ noonu ñi ci des lu luñ bëgg-bëgg lu baax lu ñu bëgg-bëgg nañ xam ni ñooñu ñoo waroon a gën a jàmbat ñooñu ñoo waroon a gën a wax te nii fii lañ jaar ak moom lii da daanaka sax liñ ciy dolli loolu rek la sant ñooña gërëm leen ak xamal mbooloo mi ni leen ña ñuy ña ñu doon mer ña tax ñu doon fayu fii lañ nii lañ def ak bi kon ñëpp nañ xam ni euh, sëriñ bi ne nañ xam ni sëriñ Touba moom jàmm rek la mas di gis nga bayit woo ma jàng ci ginnaaw waaw nag ma may ak njëggal tamit ma jàmm joo xam ne àdduna ak àllaaxira joo xam ne dootu dog bu faww kon nag jàmm moom la ci lépp xaj te sëriñ itam bokk na ci li muy ñaan lépp lum ñaan suñu borom may na ko xanaa lay lay lay lay fulla mooy nga bokk ci ñam nangoo ci ñoom waaye li mu ñaan suñu borom suñu borom may na ko te faw mu am te moo ni woon layin lanaa xulóoba xalqika wahab lanaa bilaa mashaqatin kulla arab kulla arab yooyu nag li lépp ci la su ko defee ñu xam ni nañ ñaan ñun nangu googu yàlla nangu ñaanam ci loolu ci jàmm ji mi wut di ko wut ñaan googu nangoo ci ñun te kum neex nag mu nangoo ci yow ndax nangu gi mooy rek fa jaar nga nga jéem faa jaar bañ a tooñ bañ a fayu tooñaange nee na mi ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp ci jàmm di woo bokk bokk bokki jullitam yëpp di woo bokki taalibe yëpp taalibe yam di digal julli ci dee na ñaan bokki sëriñam yëpp mboolam mboolam kilifa yi yëpp nañ ànd ànd ak moom ci ñu wut jàmm ci réew mi ndax jàmm ci la lépp xaj te ñoom kat nee na bindeef yëpp sëriñ si lañ yaakaar sëriñ Tuubaa lañ yaakaar ci jàmm moom lañ yaakaar ci lépp lu ñuy wut kon nun murit yi nan góorgóorlu dimbali ko ci loolu ba noonu ma ko bëggee mu amee ko na jàmm jooju nag mi ngi ko daanaka lii mënees naa wax ni tàmbali na ko bi ci ci ci waxtaanu korite gi ba mu ne Serigne Touba ñëpp la yéen a jàmm wax ni irham jamihal wara irham jamihal wara jooju ñëpp la dugal daanaka da dafa mel ni kon dafa xamoon ne lii dina agsi ci waxtu wi kon nag nañ ko ci jàppale baax a baax a baax lu ñu man ngir jëmi Serigne Touba liggéeyal ko liggéeyal ko yàlla loolu rek la sëñ bi ne nañ ko nañ ko nañ ko toll ci kàddu waaw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di jéggulu njuum tey ak lépp ci barke Serigne Touba ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu